comme ni ñu ko gisee dafa am euh, téere bu am solo bu ñuy wax stratégie nationale de développement du contenu local parce que jàpp nañu ne lii euh, ñii di yëngu ci mii ni di def lu bëree bëri alal bu bëree bëri bi ci génn ñu ci ëpp luñ ciy jël ay société la des fois yoo xam ne bitim réew la ñuy jógee moo tax ñu jàpp ne mbir mi bu naree dox euh, indi njëriñ pour askan bi pour réew bi jàpp nañ ne doomu Sénégal yi war nañu am yëngu-yëngu yu gën a takku ci lépp loo xam ne day jëm ci mbirum lu ñuy jënd jëmale ko ci activité bi mën na doon lu ñuy lekk la mën na doon loo xam ne moom mooy dem dem beeg ñëw bi mën na doon loo xam ne ay matériel la yi ay outillage la lii yeneen lépp loo xam ne daal ñii di yëngutu ci mine bi dinañ ko soxla te dinañ ko dépenser ci at bi bëgg nañu doomu sénégalais yi jéem a gën a takku état bi jàppale leen accompagner leen ci ay programme de renforcement de capacité ba nga xam ne dinañ am xarañ boo xam ne dana tax ne ñoom bés bu compagnie minière bi ne dafa bëgg a jënd lii ñoom ñu mën a defal ko benn offre boo xam ne dina remplir les trucs de qualité ak mën a livrer dans les délais donc loolu moom mooy contenu locale bi mbirum xëy bi tamit daf ci bokk jàpp nañ ne tamit dañu gën a dooleel suñu xale yi pour que ñu gën a xarañ ci xam-xam yi nga xam ne soxla nañu ko pour activité minière bi ba nga xam ne fii ñu doon jëlee ji ay expatriés ñu ñuy defal yenn liggéey yoo xam ne am sénégalais mënuñu ko woon ñu jàpp ne man léegi am war naa am sénégalais yoo xam ne dinañ leen tàggat ba nga xam ne dinañ am xarañ boo xam ne dinañu mën a def liggéey boobu donc loolu yëpp boo ko tënkee mooy lu ñuy wax contenu local. nit ñi dañuy wax ne bëriwul retombé maanaam euh, gisuñu ci suñu bopp lu bëri jàpp nañ peut-être activité la bo xam ne suñu gars yi ñoom lu bëri dañ koy jël yóbbuwaat ko bitim réew donc loolu yëpp ci li ñu ci Covid bi euh, chef de l'État génne na lu wax euh, réorienter plan Sénégal émergent muy PAP 2 ans accéléré. japp nañ ne buñu bëggé jëm kanam fokk suñu économie bi ñu gën ko dëgeural gëna jappalé suñu secteur privé local bi ak suñu développement endogène manam développement gox ak goxani doon développement bu am solo loolu yëpp boko bëggé def fokk nga tek ay euh, jumtukaay yu melni stratégie contenu local tax ne dinañu dolel suñu opérateur yi fournisseur yi gëna jappalé communauté yi bana tax ne projet yiñ fay def dana doon projet yo xam dina suqali économie locale mais dina a aussi économie nationale Le mm-hmm. secrétaire général a dit muy wax dafay wax né dañoo bëgg secteur minier bi ci nationale mm-hmm. Dans la société minière yi sax ñu ngi def lu ñu def ñu mais malheureusement comme ko amul cadre et nous xamné c'est un cadre uni buy fédérer toutes les initiatives motax tax bu baax mais ndax bu ñu waxé né dañuy yok emploi local bi ñu emploi local je pense que

donc c'est vraiment dans dans l'intérêt des entreprises minières que l'achat local est développé wu. avez des ni de tamit da ngeen siy nañ bu baax bu baax parce que suñu intérêt la. Mhm. suñu intérêt D'abord parce que nous sommes des nationaux ay sommes Sénégal lañ suñu intérêt parce que dina yokk dina wàññi coût yi carrément coût logistique coût hébergement lu de bëri lay